introduction bi ñu def kat. organisation Magal Darou Salam 2024 ñoo ngi nuyu gouverneur de la région de Diourbel ñi nga xam ne nii moo fi représenté chef de l' état et l' ensemble de son gouvernement ñoo ngi nuyu le préfet di nuyu góor jigéen mag ndaw ak di nuyu famille Cheikh Anta bi fi teew yëpp ñoo ngi leen nuyu aussi ci turu xarit bi. aleykum salaam comme ni ñu amee habitude euh, di def veille màggal bu ne ñuy ñëw ñu organiser CRD pour xool euh, ñuy def ba màggal bi jag moo ñu ci loolu màggal bi màggal Daaru Salaam bi mu doon ñoo koy war a màggal le 28 mai 2024 magal gi ko waral mooy ñu célébrer le retour d'exil Serigne Touba bi ñëwoon ñun Darou Salam moo tax ñu koy loolu nag ñoo doon chef de service nekk ci région bi comme ku police mu jàppale ci fànn ne moom moom la yor comme effectif yi mu yokk ko ak matériel bi circulation dem bi ak dikk bi ñi nga xam ne ñi ñooy màggal si sapeurs pompiers jàppale ñu ci assisté ñu nekk ak ñoom ba ëllëg bu amee ñu mën cee taxaw li mu waree waa Sénélec ñu jàppale ñu ci aussi waaw ñu jàppale ñu ci coupure d'électricité yi ak aussi demande nga xam ne nii borom kër def nañ ko ñu jàppale leen ci ñu muus installé leen avant avant dee aussi ci wàllu seen eau ñu éviter coupure d'eau yi demande yi nga xam ne ni moo nekk en instance ñu ko ba ñi nga xam ne ni soxla nañ ci màggal ñoo ndox ñi dëkk tam ci quartier périphérique yi comme Santiaan yi comme réseau bi àggagul foofu ñu dimbale ñu surtout waa mairie bi ñu jàpp ci ba ñu ñu mën a am ndox avant màggal bi bu fekkee service d'hygiène tam aussi ñoo leen di ñaan ñu teel a intervenir avant màggal après màggal hydraulis waa hydraulique ñoo leen di ñaan ñu jàppale ñu ci ay citerne ak ay bâche à eau bu dee eau et forêt tam ñu jàppale ñu ci demande matt très de ce fait ñu mën a jot ci demande yi mën a matt avant avant màggal bu dee Croix-Rouge moom seen taxawaay rafet na lool danoo bëgg ñu gën ko renforcer yokkaat seen élément comme ni ko defoon ci at yëpp élevage ñoo ngi leen di ñaan ñu ñu ñëw di euh, gàtt yi fay faral di jëfandikoo ñu contrôler ko avant ñu koy utiliser. bu dee ci wàllu santé ñoo ngi ñaan ñu yokkaat seen effectif de ce fait aussi ñu yokkal ñu installer ñu ay post su avancé ci ci ci ci ci màggal bu dee ci wàllu commerce ñoo ngi leen ñaan ñu respecter prix yi xam ne duñu yokk prix yi ci màggal gi aussi ñu fexe waa waa contrôle économique jàppale ñu ci. Euh, produit yi nga xam ne ni seen dak dafa expiré ñu fexe ba ko mën a écoulé ci ci ci màggal gi bu dee ci wàllu douane tam ñu jàppale taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw màggal si ñu dem ci jàmm ñu dikk ci ñu bañ leen a indi benn jafe-jafe ci seen marchandise yi ñu jot a jënd pour seen i sëriñ bu dee réseau téléphonique yi comme Sonatel euh, comme Orange Expresso Free et Promoville di jéem a yokk seen réseau ndax danoo constaté chaque màggal euh, réseau bi day saturé donc pour nga def benn communication day xaw a jafe daal loolu tam ñu ci mën a jàppale bu dee au Orange tam ñu fexe ba wàccee ñu ay lignes à desselle pour mën a couvrir organisation màggal gi ci kër gu mag gi ak ci jumaa ji bu dee waa DRT ñoo leen ñaan comme ñu ko waxoon rek. lijjanti ñu ay matelas ak ay chaise yoo xam ne nii dina mën a jàpp bu baax ci màggal gi daal ONAS tam aussi comme ni doon sàkku rek mm, ñu fexe utal ñu ay camion ak aussi ñu autoriser ñu ñu mën a déverser Mbacké pour éviter distance bu sori bi di ñuy déverser Touba daal demande yooyu yëpp ñoom doon ñaan rek euh, ngeen jéem ñu ci taxawal avant le 24 mai wala moo sës ci màggal bi jàpp na ne suñu li ñu leen ñaan di ngeen ci taxaw ni nim ni mu waree ak ni mu gënee ba màggal bi jag jag ci jàmm ñoo leen di leen sant wasalaam. jërë ngeen jëf sëñ bi ñu ngi yeesalaat suñu suñu ziar ak suñu nuyoo ba gën a sell di la ko yóbbante. si sëñ Abo Mbàkke xalifu Daaru Salaam di rafetlu ñu liggéey bi demee di jëppal bu baax seen service yi ci seenu teewaay mais également seenu engagement loolu foog naa ne jot na si jotaay bi suñu borom nag moo yore matal ñu ngi ñaan suñu borom kàttanal ba lépp loo xam ne yéene nañ ko ci bës bi boroom borom may ko ñu mën koo motale euh, du ñu dellu siwaat si euh, soxla màggal gi muy màggalu daaru salaam foog naa sëñ galas lim ci wax rekk doy na ci màggaayu bés bi ci ay kàddoom yu ci bari li nga xam ne mooy dellu mooy njëkk ci yoonu murit wax na ci yow bare yoo xam ne soo xoolee njalbeen la ci yoon yoonu murit kon loolu foog naa ne dina tax ñu gën a fonkaat bés bi ne taxawaay noonu rek ñu jëm see góorgóorlu ànd ko kilifa yu bees yi nga xam ne suñu borom moo leen teg ci boobu boppu réew mi euh, ba tax na lu ñu waxtaan yëpp rek muy ay secteurs yoo xam ne mënul ñàkk ci waajtaayu boo xam ne ay mbooloo ay mbooloo dañ fay daje ñu mën koo tënk ci ay pàcc yu bari ci wàllu wér yaram ak set li ci ëpp solo mooy poste avancé yi ngeen xam ne wax ngeen ko ci muy juróom-benn waaye ñu war ko gunge ak ay ambulance ak ay garab donc loolu foog naa direction régionale bu santé jël na note te incha allah rabi dina xool nan lañ koy mën a ci biir Daaru Salaam googu wàllu service d'hygiène donc ñoom yàgg nañ ji def lu mel noonu muy désinfection ay kër lim bi toll si juróom-ñetti fukk ak téeméer ñu war ko lëkkaloo également ak maire commune Mbacké bi nga xam ne daaw également ci CRD bi jëloon na engagement pour gunge seen lijeen te incha allah rabi ren naa dina am taxawaay boobu. ci wàllu set setal Sonaged dina leen gunge ci bés bi nga xam ne moom ngeen jël muy le 17 mai pour def ko une opération de grand nettoiement waaye toujours rek ñuy wax nañ ànd nag également. Euh, taalibe yi foo naa ne ñoom mun nañ indi jumtukaay yi ak seeni lim mais mun na bañ a mote waaye loolu tamit dañuy ñaan comité d'organisation bi ah ñu yéene ko ba taalibe aussi génn laxasaayu ànd ko ñoom Fonas bu baax tamit liggéey bi day gën a gën a gaaw gën a gën a yem mais suñ ko tegee lépp nag ci loosu Sonaged naam dinañ ko ci def waaye mun na tamit yéex ndax lim bi tamit mun na bañ a mote ndax kenn ko nekk aussi la nga am ci ressources moom nga fa mën a mën a yóbbu kon loolu tamit ñu ngi koy ñaan euh, sëñ bi ah mu yéene ko ba taalibe yi aussi am nañ yaakaar ne dañu ànd ak ñoom ak mairie également parce que ñoom it am nañ ay jumtukaay am nañ ay ressources humaines donc foog naa ñetti acteurs yëpp suñ ko boolee mun naa am yaakaar ne liggéey boobu dina gën a gën a yem ci wàllu ndox nag foo naa ne euh, mu am loo xam ne état du Sénégal aussi def na ko fa muy xëcc ndox mu neex jële ko Sadio ba indi ko Mbàkke ba tax na moo tax demande yi foo naa seen oo wax na ko demande yi xaw na bari waaye dañuy ñaan rek euh, seen o ñu def quand même benn euh, comité pour accélérer quand même procédure yi ba balaa maagul daal sax lépp loo xam ne mën nañ koo vider ci ay demande de compteur ñu def si wàllu également potence bi foo naa ne jël na ndogal tamit dinañ ko teg ci camion yi nga xam ne offort dañ leen ko daagaan ci limu fukk war na ko indi pour accompagner Euh, population yi ci wàllu ndox naam zone Sen'Eau la waaye OFOR également dans dans le cadre ci état benn bopp la dinañ xool nan lay mën a accompagner ci wàllu ravitaillement en eau ci wàllu assainissement donc foog naa daaw nee nañ am na si ay jafe-jafe waaye ren it incha dinañ ko teel jox kilifa yi naam nag am na changement ci boppu ONAS loolu tamit il faut ñu waxagum ko ndax am na ku ñu fa fal ku bees. jël na service wala jëlagul service loolu yëpp également mun a am jeexital ci wàllu wàllu mag mais tamit dina baax comme que dañ koo seqi ñu wax leen li nga xam ne aussi moo ci nekk waaye lu tere nag dinañ ko topp ba suñ borom muy yoree dimbal mun nañu dimbale ba loolu mun a mën a am leneen rek mooy yeneen secteurs yi wàllu énergie Senelec loolu foog naa ne euh, yàgg nañ di ko ci def muy branchement provisoire ñu fexe rek ba courant bi également stable ci biir commune Mbacké leneen li mooy wàllu kaaraange ndax fu mbooloo di daje euh, dina laaj également donc ñu renforcer dispositif donc di jaajëfal commissaire urbain bu Mbacké ci liggéey bi nga xam ne moo koy def au niveau de la commune de Mbacké di wax rek encore une fois nañ xool nan la ñuy mën a renforcer effectif yi dolli barrières yi waaye maintenant nag hébergement bi donc loolu dinañ ci taxaw tuuti parce que su dee bés bi également day tombeek nit ñi di dem école parfois mun na am jafe-jafe ndax tamit xale yi dañuy jàngi mais dinaa wax préfet Mbacke mu xool même su fekkee ne biir Touba la ndax Touba Mbacke jege na ñu xool ban bërëb lañ leen mën a mën a héberger à part de wala si également dès à présent ñu xool prospection boo xam ne aussi dina leen fa mën a teel a héberger nga xam ne du ñu xaar bay ñëw ñuy làmbatu naan fan la ñu di yóbbu su amee nag jafe-jafe aussi ñu teel koo teel ko yëg xool. nan ñu mën a ensemble prospecter à partir de Touba xool un appui mais bu ñu bàyyi bañ ñëw rek ñuy xool fan yóbbu ñu bàyyi si xel it tamit école ak xale yi jàng période compo mën na ne wala leneen donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel par rapport à au lieu d'hébergement euh, su ko defee ensemble dès à présent commissaire ak préfet vous fet la prospection pour xool fan la ñu mën a dalal le renfort de la ndax mënul ñàkk loolu moom je sais que il faut ñu am fu ñu leen mën a dalale loolu tamit ah ñu ñaan it comité d'organisation bi suñu amee bërëb boo xam ne ah mun nañ jàppale police boo xam ne dinañ dalal seeni ganit ndax li ñuy ñëw it ñoo ko bokk donc état su amee jafe-jafe aussi mun na wax comité d'organisation bi est-ce que ah xalaatoo leen benn makaan boo xam ne mën nañ faa dalal également suñuy mbokk policier loolu tamit ngeen jàppale leen ci xalaat boobu su ko defee am nañ yaakaar ne balaa ñuy ñëw mun na am suñ ñëwee rek dañuy jumbal fa ñuy fa ñuy dal waaye lépp engagement ak matuwaay bi ñu war a jël ñuy ñaan seen service yi ñu matale ko balaa le 24 mai incha allah cest à ñetti fan balaa màggal bi ndax dafay door ay activités yoo xam ne su tàmbalee liggéey bi day indi jafe-jafe maanaam ci wàllu assainissement déplacement bi vidange foncier mun na indi jafe-jafe donc désinfection également muy service d'hygiène on dit une semaine avant buñ nañ loolu lépp loo xam ne day indi euh, jafe-jafe ci dem dég dikk bi wala opération bi jafe pour ñu def ko ah ñu ngi leen di ñaan ngeen terminer ko balaa le 24 mai incha allah rabbi donc loolu foog naa ne mooy échéance bi nga xam moom la ñuy fixé à chaque chef de service bi nga xam ne war na dugal loxoom ci biir euh, biir màggal donc loolu daal lañu amoon liñ ci tënk di ñaan rek encore fois suñu borom yóbbu ñu fekk jàmm di sàkku tamit ñu ñaanal suñu mbokk taale boobu monsieur wadd bi nga xam ne daaw moo nekkoon ak ñun ci comité d'organisation bi si ñaan yi nga xam ne sëñ bi moom la war a def rek ñu sof ko ci suñu borom àtte ko yërmandeem te xare ko ci gën a kawe ñi fi des it suñu borom gën leen fi yàgg lool te ànd ak ànd ak wér donc loolu daal lañ bëggoon euh, tënk avant ñu jox sëñ bi peut comme les journalistes aiment le dire ñu jéem a def synthèse bu ndaw rek en français. ñaan rek ngeen taxaw ci bu baax a baax kem seen kem kàttan ndax ci ni ko waxee léegi mooy tukki sëñ Touba Daaru Salaam te bu ñu jógee ci ci tukki bi euh, loolu nag day lu yàgg a yàgg yàgg mënees naa wax ni màggal yëpp moo ci jiitu ndax booba sëñ gaawaan ba ñëwee sëriñ bi euh, ganale na ko mu juróom-ñaari fan wala lu ko ci ay beer la ak yëpp kon nag moo tax sëñ bi euh, ñu xam ne màggal gi ci màggal yi fi jiitu la te yi gën yi yi gën a yi màgg ci yoonu murit la te màggal gi mën na si ne daal Salaam donc moom ndax murit yëpp ko bokk ndax bis boobu bis boobu mu tàmbalee moo waral loolu moo tax nag euh, sën bi bëgg rek euh, ñépp gën koo fonk te gën a gën koo jox daya bi nga xam moom moom la war a am ah tey soññ taalibe yi di leen ko soññ ndax ñu gën a fonk màggal gi ñoom itam fu waaye mën a nekk moo xam yaa ngi ci biir réew mi moo xam yaa nga bitim réew ñu ngi soññ ñëpp di ko yëgal bokk yi itam ki ki xam ne ci bokk yëpp ñu xam ne ñoo ñoo bokk mag daal sam ñu ngi leen ko yëgal ñoom ñëpp tey sant ñëpp di gërëm ñëpp ay bëgg rek ñu gën ko fonk baax a baax tey it euh, lañ wax léegi fii muy yoon itam ñu ngi ñaan sëfoor ñoom it ñu def ndànk tey ànd ak bu yar ànd ak bu teggi ba mën a indi ñu delloo si leen ci jàmm ñu ngi koy sàkk bu baax a baax ak yoon yi itam ni ñu ko wax léegi itam képp wax xam ne yaa ngi ci yoon itam nga mën leen defal facilité bañ mën a ñëw ci màggal gi delluwaat ci jàmm waaw sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax daanaka liñ bëgg a wax lépp wax nañ ko tey waaye mooy bëgg rek ñu fonk màggal gi jox ko dayoom ba lépp luñ ci yaakaar rek mën ko am ci niñ ko bëggee waaw tey sant na gouverneur te te di ko ñaan rek li ñu wax rek mu gën cee taxawal baax a baax ci digalul sëñ bi sant leen gërëm leen leen sëñ làmp koy sant baax a baax ca taxawaayam waaw di leen gërëm yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah